ñu fii tey ci euh, yeex bu Koungheul Djibi Ndaw ngeen ko xam ci euh, Djibi Ndaw dëkk fii ci quartier ville tey moo def nekk ci département xam ne jël na ko ak ay ay basang ak ay ay chaise te day may ko Case tout petit nekk fii ci biir moo nekk noonu ànd ak les femmes yi xam ne tey ñooy nekk fii ci Case tout petit ko ci Lour ñu jël ko Missirah ñu jël ko fii mu nekk geste boo xam ne léef da ngeen ko dégg léegi mu rafetlu ko trop muy eefu bees xam ne moo ñëw fii ci Koungheul rafetlu ko trop trop trop trop mooy vraiment ñoom ñett ñëpp kontaan nañu mais après dañu leen jël Djiby Ndao en quelques mots mu def ko geste mu def nii pour les ko ak ay ventilo ay sijaade ay sijaade yoo xam ne xale lañ koy manqué vraiment cas tout petit dañu manqué li ñu lii la ñu ñëwoon jël ñu ko fii xam naa ci kanam dañuy jël entretien yi fi nekk d'abord tenons mm-hmm. a bien voulu accompagner mmh. le la sécurité. Nous savons que l'éducation, c'est une compétence transférée, mais c'est aussi une affaire de tout le monde. L'État ne peut pas tout faire. Si des partenaires viennent nous accompagner, je crois que c'est de cette manière-là qu'on peut quand même permettre aux structures d'être Vraiment, c'est à ce niveau-là que nous apprécions à sa juste valeur le temps que nous venons recevoir aujourd'hui de la part de M. Ndao. au passage que nous remercions. Et le meilleur développement passera par le développement Et ça, les petits, vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on Donc nous sommes très très honorés. Et vous disons merci encore encore d'avoir euh, donné cela au cas de tout petit. Et vous dire que nous encore vraiment demandés. Mmh. Ça, Dès les opportunités aussi de nous donner, en nous sommes là pour, pour cela. Je m'en Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. lots yaa ngi noonu ñun nañ ko mu nekk plus de quatre lots mooy quatre pour quatre case tout petit nekk fii ci biir Koungheul ak département bi mu euh, doon moo def geste bi am solo bi rek di ay chaise ay ay ay ay bassin mu koy may les cases tout petit loolu ci kanam tuuti def nañu bi monsieur bi ñu la nuyoo pare est ce que mën nga ñu ñëwaatal tey ci geste bu am solo bi nga def euh, à travers case euh, tout petit nekk département yaakaar naa bu defee ci jàngale gërëmaa bi war ta sori. Mhm. léegi xam nañ li nekk ci case des tout petits problème yi fi am ak yëpp moo tax ba bi ñu amee dara lu ruus ñu ne ñun duñ leen ci fàtte moo tax ñu jox leen don bu tuuti bi di ko xeeb lool di ko xeeb lool. mais li ci kanam raw li gët xëy na bu ñu amee leneen dina gën a bëri. ñu profité aussi di wax leen ne suba incha allah dinañ lancé ñaari chantier mhm. mooy toilette di nga xam ne ci lycée bu Koungheul lay nekk ak toilette di nga xam ne ci lycée euh, ci CTP bi lay nekk. Mhm. suba incha allah lii yëpp nag pour wane ne bon Koungheul moom ci lañ bokk. lu ci raw tepp kon lu ñu am Koungheul la ñu góorgóorlu ñun ñëpp ñu jàpp def ko tey taxul ne man maa gën ci jën parce que am na ñoo xam ne am nañ yéene bi xëy na man maa wërsëg bi tey mais ñun ñëpp nañ boole suñ doole rek ngir njëriñu dëkk maa leen di gën nañu xam je crois di ko wax saa su ne est-ce que mën nañu tey ñaata nga débouché wala lii ñaata la tey ci ñaata la war na toll waaw parce que bi ñu bi ñu amee budget euh, dama am ay partenaires yu jóge Québec hmm. bi ñu ñëwee def seen financement ñu gis ne bu ñu ci tabaxee ñaari classes yi dina am lu des ñu ne lu des nag lu def suñu li des nañ ko tasaare séddale ko ci lañ indee lii. Euh, baaxoo ma di wax nag nangam la. <laughs> parce que day gën a gêner nit ñi mais ku ci nekk li nga am xamal ne yaa ko moom yaa ko yeyoo ji bi daw xëy na jar na gërëm boo xam ne dafa dal ci tànkam mu for ko rek kon maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen wan ne bon ñu ngi fi Koungheul moo ñu ñor ñun ñëpp nañ góorgóorlu ku ne na def waara béy waaram li làcc bu ndaw la rek jërë ngeen ko.